بسم الله الرحمن الرحيم général Ibrahima Badouwa Dramé tey ban werd nga ñu indil astaghfirullah téeméer astaghfirullah téeméer awal ñaari téeméer juróom fukk ak juróom ñaar yaa awal ñaari téeméer juróom fukk ak juróom ñaar boo koy wérdee astagfirullah téeméer yaa awal juróom ñaari yoon yaa awal juróom fukk yaa awal ñaar yaa awal juróom ñaari yoon yaa awal juróom yaa awal ñaari téeméer waaw ba tey ndax euh, mën nga nu ko wax ci français astaghfirullah cent fois astaghfirullah cent fois yaa awal deux cent cinquante sept fois yaa awal deux cent cinquante sept fois yaa awal sept fois yaa awal cinquante fois yaa awal deux cent fois yaa awal sept fois yaa awal cinquante fois yaa awal deux cent fois defal ñu ko ci soose astaghfirullah keme astaghfirullah keme yaa awal keme fula talluulu ani worowla yaa awal keme fula talluulu ani worowla ni baa wirdi la astaghfirullah keme yaa awal ku ñaaworowla yaa awal kunyata lulu ya awal kunya keme fula ya awal kunya worawla ya awal kunya tallulu ya awal kunya keme fula général Ibrahima Badoua Dramé jërëjëf sëriñ Ibrahima Badoua Dramé leeral yi am na solo mbokk yi ñoo ko déggandoo di leen jox dig daje incha allah ci beneen numéro